dikkati naa borom scandale covid 19 bi jël leen siis ngeen toog tribune yéen a kaay nañu xamal leen ni fàtteew ñu leen xanaa kay réew mee bari jafe-jafe daal di la ñu wëñ coppet ci bii teg ci bee benn ko rajax jaxasoo lool ñuy wax ci lii pareeguñu leneen day ñëw waaye xam leen ni fàtteew ñu leen scandale la boo xam ne mbaadu dafa daal di tàbbi ci fàtte yéen a kaay bi dee média bi ne ko déet junni ci milliards ñu daal di koy tàbbal géej ne furaas lekk ko def ci seenu gafa askan bi di tuñ tuñal jaay nañ fi sax masque téeméer oxygène manqué fi ba maar day Italie ngeen di dañuy fàtte bi le scandale turbine nan kon dee duñ ko fàtte détournement boo xam ne daanaka Sénégal bokk na ci loo xam ne ku xar dënn yi daan ci fekk ñu ne déeta waaye mu daal di jéggi frontière mbir moo xam ne man la dee ko fàttee nii nii nii daar daar yéen a ngi sunu xel te lekk ngeen sunu xel riibaa te ngeen xam ne nag dëgg-dëgg senegal dafa bëri jafe-jafe yoo xam ne ci la ñuy nekk di lijjanti nii nag buñ ca noppee cay bun ca noppee daa ngeen xam ne lépp dëgg la turbine naan maan waaye Sénégal jaxasoo na coow yi bari na suñu ndaw yi jaaxle nañ jamono ji gaal gi la ñuy jël di daal di tëmbi yéen kaay bi dee média bi naan man lan moo tax nag nguur gi waxul ci lii yoon wi nga xam ne xale yi ña koy jël di dem di faatu ci anam woo xam ne maar day taali metti na gannaaw discours yoo xam ne ñi ngi ciy wax di ñu fatt dara ndaw yi moom ñu leen di jël saa bu ñu leen soxlaa jëfandikoo leen rawatina booy élection jubsee waaye buñ ca noppee daal di leen di beddi a sànni xale yi nag dem baamatunu yaakaar seenub réew ñuy daal di gàddaay di wuti ëllëg woo xam ne moo daal di gën a ñoŋ 24 heures yéen kaay jox kàddu El Amadou Fadilou Diallo ba muy xamle ni ndaw yi nga xam ne ñu ngi leen di bàyyi ñuy dem di faatu ci géej gi xanaa kon tayeef la goo xam ne dañ koy daal di def ngir daal di wàññi ñàkkub xëyum ndaw ñi yor yoor man maan xadi gajaga day ma ngay xamle ni beddi gi ñu beddi ndaw yi buñ ci jógulee lii du dakk docteur Mamadou Mansour Diouf ne waay waay maa ngay sargal Papito Kara ndaw bu bëggoon réewam ndaw bu bëggoon ab coppite it ci réewam ndaw bu bëggoon daw ngir ëllëg gu ñoo gisul boppam ci réewam ndaw moomee moo di Papito Kara daal géej gi naan maan Bougane Gueye Dany nee na dara ni réew mi di doxee day buñ ko soppiwul dara xale yi daañu dem ci géej gi daañu faatu ci géej gi te furaas du mujjee fenn le mandat yéene kaay naan kon Bougane Gueye Dany ma nga naan ndaw yi talal naa leen loxo ma ne la bu ngeen bëggee Sénégal goo xam ne di ngeen ci amaat yaakaar jël leen sama loxo bii ma leen talal ndax yaakaar la ci yéen ndax nag yéen a ngi ci yoonu Nicaragua geeg Espagne gi nguurug Sénégal gannaaw jàpp ña nga xam ne ñoo leen di yóbbu deful dara ngir lii dakk moo ne day saa yeewoo dégg ci ay faatu yoo xam ni mar toll ci fukki junni ci ndaw di doomi Sénégal ñi ngi ci diggante Nicaragua geeg yoonu Espagne gi dem gi nga xam ne ñi ngi koy dem jaar ci géej gi ci suuf si Sénégal nekk ci ñaareelu réew moo xam ne moo ëpp ay màngaankat yoo xam ne teer nañ ca waaxu Espagne googee waaye it Sénégal nekk ñaareelu réew boo xam ne ëpp nañu ci faatu géy naan sama wax ji bu leen ko jàppee ay critique jógee ci opposant déedéet sama wax ji ay dëgg la yoo xam ne maa ngi ko tàbbal sama ndaw réew ndax at wi yàlla sàkk ñetti ñoo xam ne am nañ li jaasa yu toog di xëy di naan ataaya suba bu guddi ndax amatuñu yaakaar sénégalais yi nekkoon ci pàcc pàcc gi nekk ci biir réew mi coono tax ñu daal di gàddaay daal di wut si fii ci ndakaaru ndakaaru goo xam ne daanaka yaakaar fi la gën a yankeekoo nappkat yi nag daal di am ak gàllankoor mooy accord de pêche yi nga xam ne def nañ ko napp moom daanaka ci réewum senegal léegi dañ leen fiy limité xale yi gisatuñu seen bopp si seenub réew ñu jël gal gi di gàddaay ñii di egg ñii di faatu opposition bi jël balam di tuy tuyal nguurug sénégal gi ni cell mel ni ku faalewul ak bari na ci ñoo xam ne jamono jii ñi ngi yootu réew mi lan lan def seeni programme loo xam ni boo la gée ndaw yi mën nañ am yaakaar ci sànni leen seen xob waaye itam am yaakaar des seenug réew la ñuy am Espagne di ko dund Espagne ñu koy dund fii ci réew réewum Sénégal bugaan naan leen kaay leen man duma politicien moo tax nag diguma leen lu ma leen di naxee ba ma leen di wax tekki jot na lii lépp amul woon ba ma leen di wax gëm sa boppit lii amul woon ba may wër réew mi di def yaakaar ci xol yi lii amul woon ba leen di wax ne chômage daan ko leen la am France Italie na ci réewum Sénégal rax ci dolli ñun dañoo am pétrole ak gaz lépp loo xam ne ma ne la mënees na ko wàññi ci réew Sénégal mën nañ koo wàññi lépp loo xam ne moo war tax Sénégal suqaleeku développement am fi mënees naa ne xanaa kay dañoo xoolul yoon wi nga xam ne mënees na ci jaar ba mu am bugaan naan leen diggante mbay meeg napp gi waaye tam exploité suñuy ressources lu ne mën naa nekk ngir joyanti réewum Sénégal gay naan leen yéen joxleen ma carte yi rek te ngeen di xam ni beneen Sénégal mën naa nekk l'enquête ko dajee naan maan boobu l'armée bu Sénégal day ma ngay ñuqali le soleil yéene kaay naan fan weeri junni ak juróom ci agent la ñu bëgg def ci armée bi fii ak 2035 laas naan man ca ndaje ma moom président Macky Sall day daal dinay rayal teeñ général Moussa Fall vox populi naan président Macky Sall ma nga naan général Moussa Fall am nga rigueur bëgg nga sa réew te xam nga it li la war ci sa réew général Moussa Fall naan du ñu bàyyi Sénégal moom kaaraange force la fii am réew mi ko dajee naan man président Macky Sall day ma ngay xeex terrorisme trafic bu drogue jaayub sinébar piraterie yi am ci géej gi napp gi nga xam ne jaarul yoon cybercriminalité réalité réseaux sociaux yi nga xam ne lu waay neex def deux minutes pour lire l' essentiel mel ni ku naan kon président Macky Sall booleel ci xeex bi lii recensement ANSD yi ñaar fukki milliards ak juróom la ñu ne lañ ci def te ñii ña nga naan recensé nañ ñi ñii naan ñëwuñu suñu kër ñaar fukki milliards ak juróom yi bi naan man fu mu dugg booba Walf Quotidien mi ngi may xamal ne ba tey mani la ayib dafee mënta jot fiche de parrainage bu Ousmane Sonko ni ki démb dafa delluwaat koy gàntal vox populi naan maan ko wax ayib daal di génneeg naan leen na xeex bi nag gëm naa ni dëgg-dëgg ci wàllu politique lay doon waaye tam ci wàllu justice ak lu mu mën a laaj libération yéene kaay naan man avocat Ousmane Sonko yi day fas nañu yéene topp DGE le témoin yéene kaay naan kon Sénat kay lañ ko kalaameel yoor yoor naan kon nee ñu sena wuutul DGE ci li mu nekkee rax ci dolli nag cendee la faal abal ñu le témoin yéene kaay naan kon en tout cas daaf ma nga naan keccet ma ca jël na turu Ousmane Sonko daal di riigaat ci fichier électoral bi léegi Ousmane Sonko mi ngi ci fichier ba lay jeex na waxtu woowu tribune yéene kaay ca ñaga ñaaw te ning seen daal dinay mobiliser dajale nag ay militant ak ñi nga xam ne ñoo faral APR ngir ñu jàppale Amadou Ba ngir ndam li ci tournée économique ba ca jégam te ning seen profito ca naan waa ñaga ñaaw choix bu baax baa ngi nii kujemit ak géej juuf daal di dalal Amadou Ba it xamal ko ni unité ak engagement fas nañ ko yéene fii démonstration de force am ca Mbour waxtu woo Parcelles Assainies bëgg sa réew fas yéene sargal président Macky Sall Massamba Dieye ne ci ay réalisation président la ñu daal di sukkandiku ngir daal di koy sargal tribune yéene kaay ba tey daal di jox kaddu Moustapha Diaw bokku ci bureau politique bu parti socialiste ni wax ji wax ji moom moo di lan moo tax parti socialiste nag amuñu candidat Vox Populi naan maan ca coow la ca mbéy maire ba Ndiagne Diop niki noonu it adjoint bi daal dinañ koy woolu daal di koy libéré waat Walf Quotidien naan maan Ngagne Diop kay dem na wax ay dëggam waa Descos Tribune naan maan téye gi nga xam ne ñu ngi koy téye askan wi ci kaso yi téye leen lu yàgg te atte du ca am loole la ñu daal di bëgg mu daal di dakk ci réewum Sénégal l'observateur naan maan laataa boobu ma jox kàddu ñi nga xam ne mës nañoo faati bakkan kii nee na moom doomam bu am at ak xaaj doon ko fatt ak i jooy moom la jël daal di tàbbal ci mur bi sànni tell mu faatu ba nii ma ni la étiquette reykatu nit googee dafa daal di kole ci yaramam lu ko waay bëgg-bëgg loo ko ñeewante ñeewante faaw nga xoolee ko kanamu reykatu nit. après décès euh, Papito Kara bi ñoom ñëpp dañu daal di jug pour euh, wane euh, seen euh, naqar ci pertu kooku nga xamante ni moom moo di Papito Kara comme on a vu Mariam Soda Ndiaye moom ñëwaat na ci anam bi nga xamante ni moom la Papito doon wutalee fële ca Espagne waaye itam jaale ay mbokkam di méttit lu encore une fois lii nga xamante ni moom moo dal ci euh, kawam dal ci kaw famem sax buñ ko mën a woowee noonu Abba itam gis nañ ko mu daal di génn euh, def présenter ay condoléances am et puis beaucoup beaucoup beaucoup d'internautes quand même métitlu nañ lii nga xamante ni moom moo dal ci Papito Kara parce que ku nekk gisoon na engagement bu rëy bi nga xamante ne amoon na ko pour les causes nationales waaye itam euh, pour euh, euh, ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko surtout mais aussi on a vu que da doon alimenter beaucoup de commentaires ci réseau social boobu di Facebook aujourd'hui on a vu aussi benn visuel boo xamante ni moom ngeen di gis ni ab pirogue la bu ñu teg benn cadavre afin de faire comprendre aux Sénégalais wala ndaw ñi que yoonu géej gi nga xamante ni euh, moom la ñuy jël fan yi euh, du euh, yoon bu baax bi waaye itam risque ñàkk ci sa bakkan mu ëpp fuuf risque yegg ci fi nga bëgg dem famille Papito Kara yëkkati nañ ay kàddu dénk ko suñu naataangoo yi nekk fële ca Seneweb nañu ko xool. dikkal leen fii ci nga xam ne mooy kër gi nga xam ne fi la Pape ñu gën koo xam ci Papito Kara. cosaanoo papaam mi ngi nii toog euh, ginnaaw bi mu wàccee liggéey ci bi muy dem Espagne ci yoon wi ñu ngi ak benn magam ñu bàyyi ko sëñ Moodu mu présenté wu ak euh, revenir aatam ñu ci xew-xew bi nan la demee. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi fii ci tuuba Seexu ga di wax qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sëñ Papa Guèye Ibra Ibra Guèye ñu gën koo xam sëriñ Ibra Guèye moom la ñuy moom la ñuy mhm. moom la wax ne nelaw na foofu ci yoon wi moom nag noo bokk benn bàyyi waaw noo bokk benn bàyyi mu déparé woon Ndakaaru dem dëkk bu ñuy wax Kayaar foofu lañu déparé tey nag ci boor yi onze heures la ñu yëgal ne moom wàcc na liggéey ñi mu àndoon ñoo ñu ko wax ne wàcc na bu liggéey biñ déparé ci dimanche ci xam naa bi ñu amee ñeenti fan la yàlla dogal mu faatu ci biir gaal gi loolu daal la ñuy wax ñu yëguñu woon dem gi sax. noonu daal lañ ko